requalification Ça va être, copain bu copain, àndal man mooy kan temps Tamboy. temps booy way tëj nañ ko fii cinq ans de prison ferme juróomi atu prison ferme yu nga xamante ne dañ koo taqal viol waay hmm. ah ci ku nga xamante ne copinam la papaam buggul seen diggante ñu mën ni accusé ko viol accusé ko de viol Ni condamné ko te man leer nañ ma ne jour boobu ñuy wax ne mo xale bu jigéen bi ñoo nekk maa ngi moom ñoo nekkoon di naan ataaya la condamné de cinq ans de prison ferme ah bon mu tëdd juróomi at juróomi at la tëdd c'est-à-dire viol mo doy war té amul ben preuve buñ ko ci teyé du ben preuve bi mu ñëwee nga xalé bi moom mu ne déedéet xale bi né waaw xalé bi ñu né ko d'accordoon nga mu ne d'accorduma kese comme ça ko ci juróomi ati kasso d'accord ay viol mo nek lu doy war motax mané motax man mané ne suñu loi ak règlement yi dañ ko wara xolaat xoolaat doolu hmm. hmm. ah? ko war a ci réforme wa dañ ko wara réformer parce que président de la république wa daf ci bëri ay daf ci bëri ay loi yu obsolète Hmm. dañ ko war a xoolaat bu baax a baax. moom a yow définir nga lan mooy viol peut-être viol amul menace mën nga violer te doo menacé mais dama bëgg a laajte vidéo bi nga gis. barke yàlla la duma ci wax. Ah, kon mbokk yi dañuy continuer beneen beneen da laa da laa mais face to parce que journaliste waaw parce que wax naa ci li ma ci doon wax. ok ok mais euh, waxin waaw mais xam nga xam nga xam nga li ma wax Elmad. Ah. dama ne. Ah. man dans l'exercice de mes fonctions am na lu ma gis. Mhm. Mais ce n'est mais c'est pas encore fini. non amno na ku wan bi place publique bi ko place publique j'ai regretté de l'avoir dit mais je suis quelqu'un bu nga j'assume mes propos. Hmm. j'assume hmm. tout ce que je fais. non assume ko mais mais parce que non, continue bi. non non non non non position. engagement comme quelqu'un comme quelqu'un qui comme Cheikh Yérim Seck. duma wax duma wax ku ko yor du wax ku ku ma oui duma wax mais mën nga ko nëbb sa source la. Ah, mais mën nga wax sa sa appréciation. ndax est-ce que moom légui légui laaj bi may laaj ci mu jub ci beneen boobu nga may ma moy mooy euh, menace de mort amul parce que viol lañ wax ak menace de mort ñi né akité nañ ko menace de mort mais Ismaël Madior Fall né c'est luñ ko ci viol mais dañ ko requalifier loolu laa wax né je suis pas d'accord. wa d'accord légui euh yow ndax la nga gis.

dañ ko sax fàtte woon ci loi bi dama ne la moo tax ma ne la noo loi dañ ko war a réviser maa ngi ñëw ci corruption de la ah, jeunesse maanaam ah, ah. mosoo dégg ci Sénégal ñu ne diw euh, euh, tëj nañ ko pour corruption à la jeunesse corruption à la jeunesse mooy euh, je prends un exemple Abdou mm-hmm. Abdou mii mm-hmm. ku am daraja la ku am xaalis la mm-hmm. mu ngi fréquenté Fatou mu ngi fréquenté Fatou mu ngi def loo faatu lu nga xamante ne faatu bugg ko parce que tout simplement dafay jaar ci xaalisam fay jox xaal euh, faatu xaalis di jaar di ko di ko wan ne ko man am naa dara ya faatu faatu xaale la quoi voilà faatu faatu ki la faatu xaale la ok complexe faatu am complexe ci moom ba pare xaw koo ragal hmm. ba lum ko def loo mu def ko faatu dem ba maar mu dem porter plainte ñu gis ne fee yi noonu la demee ñu ne kat kii nekul viol mais corruption à la jeunesse là parce que bi muy ak ndaw si ndaw si la hmm. mais d'accord na mais li tax mu elle était obligée mu hmm. <laughs> donc bu fa d'accord amé su fa d'accord viol amatu comme d'accord na viol amatul ko mu dem mais le juge bi def bi def bi joxe verdict bi décrire ku déglu ku déglu wala ku ko liir. di nga hmm. gis ne juge bi am na ay scènes yu mu décrire. Hmm. scènes yooyu nag boo dégloo juge bi di nga xamante ne li ma gis juge bi gis na ko. li nga li nga gis gis na ko. <laughs> mais juste bi Dieu, na ses responsabilités. mu juger Ousmane Sonko. mais il jëloo sa responsabilité si wax la nga wax ci. ci non de ma mukk du ah. ah. viol du viol du juriste. mais hein. non non non non du ne moi non mais man du man c'est pas à moi de condamner Ousmane. non non man nga condamner mais pas qui de rôle de condamner Ousmane Sonko. non de juriste. te nekk doo griffe xam nga xam nga man ragaluma. waaw non bien sûr da nga bëgg a daw. non non ragaluma man du ma daw. ma ragaluma. Euh, te. waaw ah. ñu ci bari ci homme politique yi yabuñu ma. waaw fii wax nañ fii non Momo dañ ko jox xaalis il a am ñoo xam ne wax nañ sax jox nañ ma fi cent millions. am ñoo xam ne jox nañ ma fi dix millions. sama rakk bi bokk passé bi mu déggee ne jox nañ ma fi cent millions fekk ma nekk dëkk ba coow li bari mu ñëw ne kii. ceeb bi jeex ñuy wër may lijjanti lu ma jëndee saabu ceeb mu ne ma dëgg dëgg nag. amoo saabu yow non moom mu ne ma dëgg dëgg nag amoo saabu yow. amoo saabu yow la si déggoon ko en fait. déggoo dama ne la dama ko wax parce que pas le seul journaliste dans ce pays. non dama waa mais j'ai été le seul wala wala l'un des premiers journalistes à interviewer Adji Sarr à savoir fu Adji Sarr nekk. Leral TV. yaa ko yaa ko interviewé. man maa njëkk a xam. Mhm. bi affaire bi amee. Mhm man may le seul journaliste bu dem dëkk dëkk ñoom Adji Sarr décrocher interview avec les parents de Adji Sarr. parents Adji Sarr wala Adji Sarr ci boppam. parents Adji Sarr yi d' abord. mais Adji Sarr interview. d' abord parents Adji Sarr yi. ñu dem seen kër. waaw dem Maya dem Jirna ñu am ay interview nga jël ko ñu jël leen. waaw ñu teg ko beneen bi mooy avant loolu njëkkoon nañu am interview bu nga xamante ni Adji Sarr la en exclusivité mooy jour bi Ousmane Sonko di wax di wax son point de presse là. D'accord. accusé de ko plainte Moi, Moi, waaw mooy la plainte. c'était le 3 février je me rappelle affaire bi nous hmm. ñun ñu def suñuy regroupement woote fii woote fële journaliste là. oui d'accord. Mais quand vous interview Ousmane Song à c'était pas il y avait. Il y avait non, c'était pas moi. Ah, c'était pas moi ça. Ouais, ouais, Moi, je dirigeais la boîte, c'était pas moi. Oui. Mais après, on a récupéré l'interview, après, après, après, après. D'accord. Hmm.

parce que affaire bi jeex na bu jeexee kay dañuy ko rek. waxtaan rek non non hmm. très sincèrement. mënoo ci waxati buguma waaw buguma buguma ci waxati quoi je veux. je veux amoo yaa fa dugg ah, ya fa fa ya ya non man ma fa dugg c'est vrai man ma, man ma fa dugg déggoo dama ne la. malheureusement j'ai assumé dama ne la. Ah. malheureusement j'ai été euh, l'un des premiers journalistes yu nga xamante ni am nañ interview ak Adji Sarr. ak la famille de Adji Sarr. ak la famille de Adji Sarr ak Adji Sarr en tant que coordonnateur d'une boîte bi ma nekkoon. Hmm. j'ai j'ai été le plus courageux d'assumer man ak suma patron ak boîte bi ma nekkoon ñu assumer teg l'interview. Hmm. mais interview bi y avait le monde il y avait le monde bu France laa la de. y avait le hmm. monde. il y avait le le le. beaucoup il y avait beaucoup de médias teguñu ko ñoo ko teg en exclusivité te le courage mon moo koy def courage mon mot koy donc euh, amul won amul won lenen hmm. donté sax euh à euh à euh, wax waxna ma mani euh, ñi nga xamante ci dossier bi di ci dund ñu len ci jox xaalis dossier bi jeex parce que ñom ñoo sacrifié à Sarr yooyu yëpp ko mais dama la j'assume l'entière responsabilité hmm. de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait. Hmm. dans l'exercice de mes métiers de mes de de de mes fonctions. Hmm. maintenant mané, hmm. après mané, vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que ma vie a été plusieurs fois en danger Ben, la vie de ma famille a été en danger j'ai perdu des des des amis des êtres très proches des personnes très proches du dossier je les ai perdus ils m'ont bloqué partout hmm. j'ai perdu des amis j'ai perdu des frères hmm. à cause de ça hmm. euh, maintenant on a dépassé ce stade là

me mûrir ci ci information ça m'a permis aussi de de connaître des personnes des personnes ça m'a permis de de, de savoir beaucoup de choses ça m'a permis aussi d'avoir des de de de nouveaux collaborateurs de nouveaux amis et tout. tu vois tu des quoi. ouais, euh, ci lu quel que soit Alpha quel parce que c'est nous qui avons choisi ce métier là. Mm-hmm. ak lu mën a doon. Hmm. métier bi ñoom ñoo ko choisir dañuy dañuy. assumer assumer hmm. dañ ciy nekk. Hmm. Euh, journaliste. warta ragal. journaliste pour man warta ragal. même buñ la doon tër di la rendi amuloo looy ragal. loo gis ne yow lii sa métier permettre na la ko may na la ko pour nga def ko tu la fin tu le di tu assumes. tu assumes tes responsabilités. Mhm. après si tu meurs dans l'exercice de tes fonctions say njaboot wala say doom bu ñu màggee ñu ne leen seen papa ci lii la deewee ci lii la doon lii la nekkoon ba dee. Mhm. après anyway quoi mhm. grawul parce que voilà. mais j'ai appris euh, lu bari. ci ci dossier bi ci hein. dossier bi. dans l'exercice de mes fonctions. xam naa luma lu ma war wax ak lu ma war est-ce que xam naa léegi fu ma a dem. ak fu ma war a dem <laughs> xam naa ku ma war a ak ku ma war